قالوا سفيه لسرفي عنهم بشري ورغبتي عن سوي العصيان في البشر قالوا سفيه لتفيدي إلى ملكي أمري عن الكون في صف وفي كدري قالوا سفيه لحبي خالقي ملكي ولم أكن للبلايا أستكي ضرري قالوا سبيء لكوني لم أقف أحدا وما رجوت سوى الرحمن في القدر قالوا سفيه لخفي نهجم الجيناس الشيخ سيدي فخل الخير في الخبر فقلت خلوا سبيلي mu ne mu ngi sant yàlla bu baax moom mi nga xam ne mooy buur bi di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. di yëkkati ay kàddu di yëkkati ay kaddu. ci turu Serigne Moustapha. mi nga xam ne mooy sa jëwriñ ca njabootu Cheikh Mouhamad Lamine Baara guy mbind. muy kaddu yu ak kaddu cant. ak kaddu ngërëm. ak kaddu yeesal lépp ni mu ko baaxoo def at mu ne te ñi jiitu woon ba mu agsi ci yéen moo tax Serigne Moustapha Matilé ànd ak njaboot gi yëpp la ca ëpp bokk ci mboolem bunti këri Cheikh Mouhamadou Lamine Bara nee na ñoom ñëpp a ngi moom nii manes na cee jiital sëñ Bara moom sëriñ Abdul Karim ak Serigne Moudou Baara xalifa si Abdoul Ahad Serigne Abdoul Abo di xalifa Serigne Abo Madiana mu ngi nii Serigne Cheikh Thioro xalifa Serigne Amad Fall Mbacké moom it mi ngi nii Serigne Moudou Baara xalifa Serigne Abdoul Khadim mi ngi nii Serigne Laminum sëñ Ibra sëñ Basiru Khoudia dafa am gànt waaye yabal na sëñ Abdoul ak sëriñ Abdul Xuddus sëriñ Xaadim di xalifa sëñ Moussaïn Baara mooy mi ngi nii sëriñ Baara Laxat ànd ak sëñ Muudu Baara ak mboolem njabootu Cheikh Sidi Mokhtar gi ñi ngi fi sëñ Muudu Aïcha ngi fi ak sëñ Jiili Matiley sëñ Abdou Samad sëriñ Xaadim Diop ñoom moom fi teewal waa kër sëriñ Ñaan Diop. Serigne abdou Aziz Diop moy khalifa njoben Ngunta mi ngi ni wa ke serigne khadim awoba ñi ngi fi Serigne Mar momit minggu mi ngi ni and ci njabot gi Serigne abdou Ahad manam dal buntu keur Serigne Mouhamadou Lamine bara yi ci ëpp yëpp wa ke serigne abdou Aziz Bara, wa ke serigne Mourou Aïcha wa ke seigne khadim awba ak ñi nga xamne ne ña nga ne ci ganna fa tabaarakallaa ci teunk di melne na kenn di sufa di ñaan yalla suñu borom mu guddal saw fan may la wir ba nga yag jité njabot gi sëriñ Moustapha mi ngi lay séeréel ne njabot gi nga xamne ne ci gannaawum deggal nañ ko lol noppal nañ ko yit ñuko jox seen bop lañu di ko déglu saa su ne moom it mi ngi sàkku nga ñaanal njaboot googu yi nekk ga mu nekk ca bopp kër ga dafa mel ne booy xool kenn ku nekk ci ñoom ñoo ëpp sax yéene sëriñ bi noonu lañ nekkee moom lu mu bëgg dañu bëgg lu ko ëppal kon mi ngi la koy seereel bu baax di sant njaboot gi fi sa wet tàmbalee ci sëriñ Ousmane ak mboolem diiwaan bi yëpp ñi ngi jotal. ñi ngi jëflante te lépp yi rafetal nañ ko loolu mi ngi la koy séeréer moom it di wax ne ca Angleterre moom Serigne Moustapha dafa am njaboot gu fa ne di njabootu Cheikh Mouhamadul Moustapha di njabootu Cheikh Mouhamadul Lamine Hollande ca Hollande it sëñ Sidi Ahmed dafaa demoon bëkk démb mu boole leen lëkkale leen nee ñaari kër yi benn lañu. boole leen seen bopp nam nekk ci Daaru Xuddus loolee ba mu koy defit ci turu sëñ Moustapha ak sa ndigal muy sàkku nag ñu soññi leen ca loolee bañ xam ne loolu lépp ci yow la bàyyi koo ñu xam ne it njaboot gi genn la taalibe yi benn la kon nee na mu ngi sant bu baax tey gërëm bu ñëwee ba fi sawet tey jii xam na ne amu fi kàddu ñëw ziyaar rek déglu la rek nga jox ko ndigal rek mu jëfee ko loolu mooy warteef yi waaye moom fa mu nekkoon ak njaboot gi fa mu nekk ak njaboot gi fasu nañu toog fa di déglu dégluwuñ keneen dégluwuñ leneen. Ahmadul Muxtaar sa njabootu bopp gën a nekkal fële ca guy mbind te sa jëwriñ ji di Cheikh Mouhamadul Moustapha nekkal la fa ci kanam mboolem lu sëñ Baara jaboote. may yëkkati sama kàddu ci aw turam eh, ñaari kàddu yeeg ñetti kàddu yi sëñ bi su sañoon ñii mu àndal ñëpp ku ci nekk dana yëkkati kàddu wan la li nekk ci xolam fiñ la teg ak fiñ ko teg moom mi su kenn ku ne mënoon na jël kàddu dana ko def jublu gi du lenn lu may wan la li nga xamante ni moom la àndaale ak moo nekk ci xolub boppam ak xolub njaboot gi mu àndal yëpp yi ci jiitu nee mi ngi lay nuyu di jaarale ci yow nuyo bi mi nuyo ëttu Cheikh Mouhamadul Moustapha bépp bi nga xamni ya nek ci kanam di la ndokel bu baax ci bu ko sañé ndax du def len lu àndut ak ndigal ndax la tafalu shay'an bi xayri isnin fal isnu shartun fi xabuli sha'ni tayit la yasbiqunahu bil xawl wa hum bi amrihi ya'malun ñaar yooyu yep da ko tank kon mi ngi lay sant di la gërëm ci turu mboolem li Cheikh Mouhamadou Lamine baare jaboote ñëw na nag ànd ak njabootu kër gi yëpp sëriñ Cheikh Coro mi njëkk a jël kàddu tudd na ñi ci ëpp euh, waaye ñi fi teew ñëpp kenn koo xam ne ñu tudd saw tur moo la indi amu ci danoo am ndigal ci suñ kilifa ci gunge ko mu jëm si ci ab sangam ci wasilaam ña fa nekk te jage fa jóg ànd ak moom Euh, nuy rafet lu baax doxinu Cheikh Moustapha ci bis bi sëñ bi nee na mi ngi ànd ak yow liggéey bi ni Cheikh Mouhamadul Lamine Baara ànde woon ak Cheikh Mouhamadul Moustapha noona moo doon nal jël léppam jox ko dale ci moom yam ci moom di ko déglu dañ bokk lépp waaye xam na ni mbirum sëñ Touba moom kilifteef rek mooy li ci am solo waxtu wu nekk day dox ci kilifteef yeneen nattuwaay yi ñuy natte yépp leneen la jàpp waaye jàppul kër sëñ Touba. توفيق جسون sunu borom defal محمود المصطفى Moustapha Touba ak Husnu Maab ci alxuraan rek la am. alladina amano wa amilu salihati Touba lahum wa Husnu Maab ñoo taqaloo ci wàllu dëkkuwaay sëñ Modou mustapha ak serigne Bamba rek ko am Touba ngi ni tindo do ngi ni di Husnu Maab ñoo taqaloo boo ko doon wëri feneen ko gis. kon koku yàlla nañ ko yàlla fayal serigne bi mi ngi lay sante bu baax di la ndokel ci bis bi Cheikh mamadou mustapha ci yane bu dis ba bis bi bi nga xamanteni rango ñu xol yep nga touru ndax. diko señ bi Touba ñi di tour ci xol ñi di tour ci beut Cheikh Mouhamadul Moustapha moo feral rango ñi nit ñu mat ñoo don joy joy joy xol ñi don joy joy zahirat moo fomp seen rango fomp gi nak du jël di fomp dafa mel no xamanteni kuko gis amuk dal ca dal ga ca mat ga ulaayikal xawmu la yashqa jali suxumu is yàkk si dafa amon comportement bo xamni li mbir mi reey reey bu ñak doon am ñunu Cheikh Mouhamadul Mustafa mo ñak bu doon bu doon yan bi itam diisaayu yan bi moom moo ko war a yëg ndax ci boppam la ko sëñ teg kon bu jaaxle doon am moo war a gën a jaaxle waaye moo gën a dal ñëpp defal ñëpp ba ku ko gis loo mën a na am ak loo mën a na yëg di nga dellu suwaat ci sago ngir jëmmam ji dafa am kenn ci magi taalibe yi ku koy xool ginnaaw bi ba si mu ni ko Cheikh Mouhamadul Moustapha de man dama laa yërëm ci yan bi ndax yan bi diis na lool dama bëggoon nga wax ma gan wet laa la mën a féete jàppale la ko ci liggéey bi sëñ Mouhamadul Moustapha ni ko maa ngi lay dénk nga defaral ma sa bopp boma ma lesa sa bopp rek jàppale nga ma lola nak nanu dimbele serigne bey sunu kilifa yep defar sunu bop defaral ko sunu kilifa yi ndax nu wayef ci seeni loxo serigne bi yalla nang ko yag jite yalla nang ci tasse ngeureumal serigne bi nongi lay ñaan nga ñaanal yoonu yep ndax bes bi sa bes la nongi lay ñaan nga ñaanal ummatu sayyiduna muhammad bepp ci bes bi lo ci ñaan sunu borom dana ko def nongi jeglu cheikh mouhamadul mustafa ngi mi ngi gëna feddali ak nekkam ci sa ginnaw ak mbollem njabootu cheikh mouhamadou lamine nu nit nongi lay sérel ni kilifa gu mat kilifa la kilifa gunu doyloo la kilifa gunu yërëm la gunu ñeewante la loolu nag sama waxi bopp la su suñ diggante ak moom waaye wax naa ko ci turu njabootu mboolem ñim njaboote ci kër Cheikh Mouhamadou Lamine Bara ñaanal nu ko bu baax mu yàgg fi te ñaanal nu nu topp ci ginnaawam tey jëfe ndigalam wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu sëñ Moustapha Mbacke njaate di magum kër gi nee na ngir ma wax ay kàddu dey du yomb ndax yi jaar te sell. te mel na mu war a mel. te dara mënu caa tege. dara mënu caa tege. waaye nag. waaye sëriñ bi moo wax ne. sëriñ naa ci sànni ay kaddu. naa ay kaddu. kaddu yi nag. kàddu yi nag. weesuwul. weesuwul. soññe. soññee. ak fàttali. ak fàttali. ak fàttaliku. ak ngeen xam ne. ngeen xam ne. jataay bi jataay bi li muy rëy rëy. li muy rëy rëy. ki ko tax a rëy. ki ko tax a rëy. mooy soxna Aminata Lo. soxna Aminata Lo. almardiya ngir pas-pasam. ak yéeneem. ak yéeneem. ci sëriñ bi. ci sëriñ bi. moo leen may lii am. nee na moo leen may lii ngeen am. ndax. ndax kat. fa mu nekkoon. fa mu nekkoon. jiitu fa. jiitu fa. ne fa ndaw. nekk fa ndaw. sëriñ bi dem fa. sëriñ bi dem fa. wax ne bëgg koo laabalal ay wax ne dafa bëgg. ko ko fóotal ay yéreem. kam nekkal. kamu nekkal. ne ko kii ma yor de ndaw la. ne ko kii ma yor de ndaw la. waaye laab na. waaye laab na. laabug mën laa liggéeyal. laabug mën laa liggéeyal. ñu ko yére jox ko yére mu dugg ca néegam. mu dugg ca néegam. xooj yére ya. xooj yére ya. naan xooj naan xooj it ma. moo maye li am. loolee moo maye lii fi am ci ga Daaru Xudoos Guy Mbind. te sëriñ bi ci boppam. te sëriñ bi ci boppam. Cheikh Moustapha. Cheikh Moustapha al Karim. ànd naag taalibe yi. ànd naag taalibe yi. ñu liggéey fii ci Tindodi. ñuy liggéey fii ci Tindodi. ba liggéey bi àgg. ba liggéey bi yegg. mu yóbbu ko njaareem. mu yóbbu ko njaareem. ne ko dugub jaa nga fa. ne ko baax ku tedd ka dugub jaa nga fa. lii mooy njëgu gerte lii mooy njëgu gerte ga. sëriñ bi ne ko. sëriñ bi ne ko. def ko ñetti xaaj. def ko yetti xaaj. bii na jëm ci yow mi leen di taxaw. bii na jëm ci yow mi leen di taxawu. bii na jëm ci ñi ngay taxaw. bii na jëm ci ñi ngay taxawu. bii na ñëw ma def ko ci li may def. bii na ñëw ma def ko ci li may def. daal ne ko Mouhamadou. daal ne ko Mouhamadou mu ne ko Mbacke. mu ne ko Mbacke. mu ne ko jëlee nga ci man juróom yaar yëf. mu ne ko jële nga ci man juróom yaar yëf. yent yi. yent yi. soxna Aminata Lo sa ndey. soxna Aminata Lo sa ndey. moo la ko fàggul yett yi yaa ko wutal sa bopp mu ne kon li xew li xew kenn ko xewal kenn rek la te mooy kenn ki te mooy néeg te am néeg ci la ñuy jage ca ñuy jage ca la di safaan bay di amee li xew nee na li xew soxna Aminta soxna Aminta loo rek ànd bii ngeen ànd. ànd ànd bii ngeen ànd. benn xol. benn xol. bu seddee ne xolam bi. bu seddee ne xolam bii seen ànd bii ci yéen ñii ah. neena amul. waaye may nee. waaye nee na moom it. mi ngi ñaan. mu ngi ñaan. ci darajee Cheikh Moustapha. ci darajee Cheikh Moustapha. ak Serigne Baara. ak Baara. yàlla bu leen dara dog. yàlla bu leen dara dog. amiin mu ne jërë ngeen jëf. jërë geen jëf jërë ngeen jëf mënoon ngeen toog ci seen kër nee na mënoon ngeen toog ca seen kër def ko fa defee ko fa te bu ngeen ko defee te bu ngeen ko defee day mel yéen a ko defee ci biir day mel ni yéen ko defee ci biir ëtt bi ndax benn ëtt la waaw kon mu ne kon jërëjëfati jërë ngeen jëfati asalaamaaleykum wa rahmatulah ما لي سوى طاعة الرحمن من ما لي سوى الله إسمى اللهد خيبني وجاءني ملكان الدهر من وذري ما لي غدنين عسرائيل يخبدني روحي نسير سوى مولاي في العسر